turandoo la yow moom du ma wax ci yow mhm. man ak yow Sen TV man ak yow fu ne kii moom sama gaayan la sama gaayan la ma père maa ngi lay nuyu bu baax a baax alors wàccaay bi léegi mhm. mën nañ wax ne euh, ci cent pour cent quatre pour cent naay sax mhm. pare ngeen waaw euh, pare nañu euh, bu doon nii sax pare nañu di ñaan yàlla rek la jour ji yàlla ànd ak ñun mais mbooleem luy maye def nañu ko ànd nañu ak suñuy mbokk ak suñuy am di jàmm Euh, def li ñu war a def lépp préparé nañ mm. ci wàllu xeex préparé nañ ci wàllu bëre mm. di ñaan yàlla nag le jour ji yàlla ànd ak ñun mm. mais daal bàyyiwun benn détail père li ma doon bëgg a laaj loo xam ni lu am importance la xam naa loolu bàyyi ngeen ci xel en tant que ngeen yi nekk euh, ay magu Siteu mag bi mooy ngeen nekk ay mag yoo xam ne yéen a nekk ci ginnaawam li may gën a laaj ci côté wàllu xel ci wàllu bopp ci wàllu préparation parce que mu ngi bëri koo xam ne professionnel la xam nga ko ku nekk Fass moom xam nga ne ndaanaan lay doon dafay bëri caay-caay est-ce que yooyu suuraale ngeen ko ak ki nga xam ne tey xëy na mën na yee fougue de jeunesse am bi nga xam ne moo nekk ci moom est-ce que loolu bàyyi ngeen ko xel bu baax a baax parce que am na combat bu mu jugee looloo ko ko yàqal waaw mais xam nga moom waxuma euh, ndaanaan gi mu doon ndaanaan la mais bul fàtte ne duggoon na lamsaar nak mm. ndax bëri na ak nees. waaw bëri na ak nees bëri na au moins ñun xam nañ ko. nangul nañ ko ak ndaanaanam est-ce que yoon. <laughs> déedéet déedéet déedéet non damay ndax euh, moom moom moom tuutee yàq sax combat ak Tidiane ne waroon naa taxaw. ndax daa am combat bu Tidiane ñàkk mm. moo tax ne kon heure bi ñoom ñaar dinañu bëre. Mm. mais daan ndaanaan la nag xale bu ñu respecté. te xam na leen xale bu yaru xam nañu mais ñun xam nañ ko. mais loo ci mënti dégg daal ñi ngi xalaat ne Eh, yàlla mën nañoo may ndam ci combat bi ndax am nañ ci yaakaar te liggéey nañ ko. moom nag noonu la ko yaakaaree ba waat ko ba giñ ko. waaw c'est normal mais nee na waat bi moom daf ko teg ci loxo yàlla. waaw mën na giñ rek mais mais waat moom bokkut ak teg ci loxo yàlla. mais ñun daal ñi ngi ñaan jaam sañ naa ñaan. ñi ngi ñaan yàlla daal le jour ji yàlla ànd ak ñun mais ñaan nag doo ci yem ndax rëbbikat sax da ngay yóbbu bal yóbbu fetal diir tiire yàlla doo ko ñëw. Hmm. da ngay liggéey entraîné ba pare doo ko ñaan. Hmm. kon entraîné nañ ànd nañu ak suñu mbokk ñi ngi ñaan daal le jour ji yàlla ànd ak ñun hmm. dama la gis sànq nga ànd ak nga ànd sa rakk ah, yow yow moom père moom day toog nii rek staff bi ñoom dañuy toog nii rek bàyyi laak bàyyi laak xale yi xam naa ko prési prési day toog nee yor téléphone am di woote ah waaw yow nga nekk ci xale yi tey lan ngay wax ci sa rakk pare na léegi physiquement moralement ba xam pare ci li may wax tamit sur le plan psychologique parce que loolu lu am importance la ci moral bi ba ci bisu combat lu am importance la ci moom waaw xam nga wala moom boo ci yàggee ci ay at hmm. maanaam kenn du la ci wax loo xam te ne day dañ fi mu ne nii te wax dëgg yàlla xale nag màgg na si lam mooy seen communication saa yu su juumee boo ko du ko wax hmm. ndax sànq sax maa ngi leen dégg ñu naan yaa yaa yooyu laay dégg sax nga mi ngi mi ngi mi ngi daw question yi mi ngi daw communication mais nag dara quoi xam nga xale moom boo yàggee ci làmb hmm. maanaam da ngay dem ba dangay xam yoon bi daal loolu la tax mais moom deful amul benn pression wax dëgg yàlla waaw mais combat bi amul pression. non wax dëgg yàlla amul pression si combat bi. li la li la père wax rek. li la damay gis ne gars yi xam nga confiance sant pour cent daan rek amul leneen ak leneen d'accord nit da koy gëm mais ni ngeen ko gëmee man pour man dafa dafa jéggi dayoo. non xam nga moom moo toll foofu noonu ñun dépassé nañ foofu moom moo toll foofu noonu ñun domaine boobu dépassé nañ fa. maanaam fi mu moom moo yenu loolu. parce que ñun xam nañ dafa jógee si écurie bu mag dafa jógee si écurie bu mag dem ber écurie comme il faut charge bi day luur si moom ñun diisuñ la diisuñ ñun de ñun ñi ngi nekk lamsaar fi ñu nekk ñi ngi préparé ñu war a nekk pression bi foofu la nekk de nekkul si ñun nu mu nekkee si ñun ki mi bëri xale la moom nag ay booyam dañoo bëri daan de waaw problème bi moom mooy dafa jógee Fass ñëw foofu noonu ber écurie yor ay xale mu nekk booy commencé def ay mu nekk seen yaa ngi def affaire mag de maay de ñun ñun ñun combat bi na yàlla nii lañ ko teg xam na ne amuñ ci benn pression amuñ ci benn pression l'essentiel li mu war a def moom def na ko booy seet sax ni muy waxee si communiqué keroog signature contrat bi wax na dem na ba ne carrément ba mu tuusee ba pare laa xam ne kii billaahi mënu maa yëngal ndax tànk yi ak dugg na fi génn fi loolu day use maa xam na ne ñun xam nañ ne booy bi màgg na loolu loolu yëngalu tànk yi da doon wax ne kii kiiwul léegi moom bu ko sànni dina xam ne ah papa koo xam-xam ne ko si ndaama ak njool mënuñu bokk ci entraînement ndaam ak njool mënu ñoo bokk man li may def pour développer tuuti tuuti bokk ak njool li muy def pour développer doon di reprise waaw loolu moom reprise ki nga reprise woon sama gaan la nag léegi <laughs> kan la <laughs> jaguar maa ngi lay ni sama gaan la nag sama waay la wa sama waay la sama waay reprise ma naqari sama waay la ah kooku sama xarit la nee na mi ngi lay invité États-Unis waaw ah, yow pare jeex na pare na pare nga waaw <laughs> bu ci kanamee mën naa la wax benn affaire benn action. <laughs> jeex na alors prési. Euh, lan nga ñuy wax ci bés bi prési lép loo xam sur le plan moral et psychologique préparation lépp pare na xam naa aspect physique beeg bëre bi ñoom père Max ñoom ñëpp wax nañ ko quoi. waaw ñoom xëy na ñoom techniciens yi ñoom wax nañ ci côté boobu mais ñun ci beneen côté bi xëy na ci la ñuy waxee. Mm. mooy euh, làmb la ñoom combat bi taxawoon na euh, bien avant lii parce que demoon nañ ba des quinze jours Covid bi ñëw yàlla def ñu fomm ko biñ ci jógee ba léegi nag ñun tamit ñi ngi woon ci suñu préparation ci lépp li gën a neex ci ñun daal mooy xam nañ ne combat bi moom mbër mi bëgg na ko jaral na ko lu nekk waa école de lutte bi aussi bëgg nañ ko lutteurs yi mu seqal école bi ak écrit bi tamit aussi bëgg nañ combat bi te mbir nag bu fekkente ne ni da nga koo bëgg lam laaj yëpp aussi nga def ko di dem di wuti yàlla mi maye rek ngay ñaan pour mu may la te am nañ yaakaar ci ne yàlla ñu may. ci kàttan suñu borom président tiitoo yow. nooy tiitoo xofoo. yàlla bu ma tiit ko ànd président Tarkinda. non non non ku ku ànd ma ànd ak boo tiitee war li nga doon mëtatuloo ko toi aussi. ñun duñ tiit dara non dama la gis sax nga toog rek croiser les bras. non croiser les bras booy wax na xam nga xale yi ci boppam laay bàyyi ñuy wax rek comme xale yaa ngi wax moom il faut ma concentré wu rek di xool ba xam ñoom li ñuy wax. Mm. fan lañ koy e et tout ça mais sant yàlla rek mais ñun duñu tiit duñ mës a tiit am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax ndax xam nañ bu baax liñ liggéey xam nañ aussi ki ñu ànd ak nañ ñaan yàlla rek yàlla ànd ak ñun ci jour ba incha allah waay merci. jaajëf jaajëf. maa rek sant yàlla bu baax. gis ngay xul sa bët yi di ñàng ñàng. mbër la te di mais ba tey mbër la mooy Kalidou. ci mi la yor. non non non. non léegi ñuy contacter la. waaye ngemb lañ yor moom la ñuy non ngemb yi ñu contacté laa yor ni nag waaw ngemb yi ñu contacté laa yor ni non wax dëgg yàlla liggéey na waaw liggéey na te li lim liggéey doy nañu hmm. wax dëgg yàlla xam nga lu ñuy xaar jour yi incha allah rabi ñu ñëw appliqué lu ñu liggéey te wax dëgg yàlla ñun xam duñ duñ tagg suñu bopp de waaye xam naa ne Papa Sow wax dëgg yàlla nekkul moom moo ñuy téye ndaanaanu faas xam naa ndaanaan Papa Sow ndaanaan Papa Sow jaar ci université hmm. ma xam man pour man yéen waru ñëw jaaxal bi man loolu moo ma jaaxal li leen jaaxalul moo ma jaaxal. c'est que xam nga benn laa affaire laay wax man Siteu ba léegi ba li li li ne si moom wane gu wax nañ ko ba taay bëreegul. combat bii nag lay lay wane bëreem. wallaay laazim. Ah, parce que ndaanaan nag lay daj. combat bi mu bëre. kuy reporter bu yow nga préparé ñi ngay bëre ñi ngay bëre na am ci làmb ji. neex bëre naqari bëre. moo tax ma ne la incha allah ci ci kàttanu yàlla li ñu xaar ci Siteu ci ay at ñu koy wax di ko tudd ci combat bi lañ koy gisee incha allah. dina am xeex ñamante. dina am xeex te xolo li mu yaakaar. barke bu ma jël sama daan ko jël bu rëy bu ma jël sama daan ko jël bu rëy du mbër jël seegu ma te xam naa loola loola am ci làmb ji daw mëb xeex góor. dara newu ci. waaw moo tax ma ne ko xam loolu la foog moo dafa nar a nax yéen jéemu leen a nax sax di leen wax loolu. wala lazim xola moom moom làmb ji lim. naamal gosaas la de dafa bëri baax na li ma am ci sam li ma am ci làmb ji. ñun Siteu dañoo yàgg ak moom ba mu nekkee xale ba léegi ñoo doon contact ak moom man ba mu ñëwee ci écurie bi maa ko njëkk a dalal man la njëkk a contactal ci làpp bi kon xam naa ko bu baax qualité bi li ne ci moom wala walaay lazim waneegu ko ci làmb ji te combat bii ni combat bi ci la koy wane incha allah ci kàttanu yàlla. ak Soro Malick Soro Malick Soora Malick kii kii moom sama nit la yàgg na. Eh, waa Lansar eh, yow moom da ngay yàq rek. waaw sant Pa Maguette. fii la waree ñu ngi lay ziar di ziar waa Sénégal yi tey jamono comprendre nañ àdduna noonu la. waaw sant yàlla di julli ci yent waaw. xam nañ waa Fass waa suñ bopp lañ gën a xam ñu ngi waaj bu baax waxuma sax waaj waaye noppi. ku ne Papa Sow ndaama ndaamal Gosaas am xel jaar faas. waaw der yëfi boppam ñen bëgg affaire yi nii xam nga suñu lu muy neex neex samaako ko dàq. te ñun amuñu lu dul lamsaar. te amuñu ku dul sita Papa Sow bu dee ndaanaan it xam nañ ci dara mais Siteu it ndaanaan la te xale la te sport day favoriser xale. dara dara amul lu ñu ci moytu bu dëgg rek neexee yàlla amul lu ñuy moytu ci Papa Sow. kenn amoo dara looy ñu moytu. déedéet mu jàpp seen tànk. nañ ko daal xam nañ ne champion la mbër boo moytoo lépp sax doo bëre. dina <laughs> am nag looy moytu. xee waaye yow tamit waaye nañ bàyyi noonu rek eh nañ bàyyi noonu rek déggoo li ma la bu Papa Sow combat bi fukk bu ko fonkee fukk fonk nañ ko téeméer ndax ñoo gën a doon xale. waaw yow tamit non si te yabul nit ñi sax na. yabu leen de. nit ñi futee ko ba a andi doole ak ñëw di saagaane làmb ji kon ñu duma ko. wax yow non non ñemewul lool sax. père Tarkinda ay ay président Tarkinda ñoom ñëpp. père père kii nu mu tudd père Gora Tarkinda. non Sora Mal Tarkinda. mooy yabul Tarkindes mooy jigéen ñi. yabul nit ñi de Tarkindes yi ñëpp génn. yabul nit ñi moom daal na ko teg ci yoon ndam nag borom mbaar mee koy maye mais même rëbb booy rëbbi. dañ lay wax yoral fetal yóbbu bal diir ci pàddu tiire yàlla doog a ñëw maanaam maanaam defal li nga war def lépp nag doog te li ñu war a def yëpp def nañ ko ñu ngi ñaan nag te xalaat nañ ne yàlla dina ànd ak ñun. gis naa ko. teg na ko ci yoon. waaye yow dañuy dañuy moroomu loolu yow non déggoo li ma la ñun komba ñun combat buñ combat buñ amul yaakaar duñ ko jël hmm. kuñ xalaat ne mënuñ laa daan duñ ko jël. duñ ne duñ daanu nag ndax bëre daan ak daanoo fi ne mais combat buñ jël lii war a def yëpp dinañ ko ci def ñi nga am yaakaar nag la jour ci yàlla ànd ak ñun Siteu bu fonkul combat bi dafa yàpp nit ñi munoo dëkk Ama Baldé euh, tuuti moo dox seen diggante ci wàllu prix ak benn staff bi ne ko duñ ko jël Ama balde daan Papa Sow ci lu matul cinq minutes nga jël Papa Sow di xalaat daanu ci kon dañ daan kii daa yaboon Ama balde ndax Siteu fa mu teg bëtam xalaatuñ sax Papa Sow daan ñu xalaatuñ ko xalaatuñ ko euh, maanaam boolewuñ ko ci bu ñuy witi mais buñ demoon daanu yi dañu xam ne loolu la ñu yàlla may keroog mais ñi ngi daal ñaan daal sunu borom mu may ñu ndam la jour ji te ñu ngi ciy am yaakaar nag.